xëy na dafa jàpp léegi bu ma ko mënee jot dinaa ko laaj su ma ko laajee ba xam ci lu leer boo ma laajaatee ma wax la ci lu leer. kon du ñàkk dinañ si dikkaat beneen actualité bi ñu waxtaanee mooy plainte euh, capitaine Touré euh, jëmale ko rek ci li nga xam ne moo di euh, Anita TV ginnaaw bu mu defee benn publication dina xamal ni kii di capitaine Touré jiite li nga xam nag moo di APS dafay jënd benn benn benn kër bu toll ci 200 millions bon plainte bi de. man damay ñaan damay wax ne dama ciy sant parce que bu ñëpp doon def ni moom xam nga dafa am lu ayel Malick wax loo xam ne ci kii bi muy porté na plainte pour yenn yi parce que tamit jékki-jékki rek di tuumaal ay nit ñoo xam ne ay gor wóoru la ba xam nit ñi du du dëgg loolu noonu faaw mu dakk nit ñi xam ne dangay am preuve ci mbir doog cee wax mais jékki-jékki rek jël nit ku am kii daal ñëw giñ ko le te fa yow a yegg du man yeggu fa maanaam ni ma ko waxee mooy fa yow a yegg du man yegg fa voilà teggituuma parce que loolu boo continuer di di bàyyi kum neex rek waxee nu la neex li fi amoon moo fi am doo xam lan moo ciy dëgg ak lu ci lu ci du dëgg léegi nag taxaw di ko weddi parce que tamit li sëñ Saali waxoon rek mënoo yow fu ñu la waxalee dara nga weddi dana mujj boo bu leneen xewee te weddi woo ñu ne ah nangam ak nangam léegi loolu danga koy daal di gis léegi nag moo tax ci lu mel noonu boo demee porter plainte tey ñu àtte ko taxaw comme li am am bu ci waa ji amee ay preuve ñu xam ne yow suñu amuti preuve ñu yoon jaar fam jaar ak yow léegi tey keneen dootu ko defati te dara dimbale ñeneen ñi balaa nit a wax dara gëstu ko gëstuwaat ko voilà. kii làqatu si ginnaaw Anita ba du nekk ab autorité ndax fàttaliku nañ bu ñu arrêté Ousmane Sonko fële ca euh, côté Kaffrine moom moo publier woon Ousmane Sonko euh, ci biir auto euh, police bi moom aussi moo publier woon li nga xam tey jii bu ñu demee ba euh, police def si li nga xam nag moo di liggéeyam baa du baa duñu am benn mbetteel si kii nga xam ni moo laxaroon ginnaaw euh, Anita TV waaw mais même bu dee kilifa it man damaa jàpp ne kilifa googu àndul woon ak gendarmerie di ko jàppi mooy bi mu nekkee fële fi ñu ko jàppee woon loolu fourgonnette boobu nga xam ne ku ci dugg da nga war a sol sax casque Ousmane Sonko solo luñ ko casque nga xam ne oto bi bu jékkee-jékki woon daanu manaam takk der yi ci nekk ñoom mën nañoo sauver mais moom mën naa dee te loolu du yoon ba pare mu am ci photo ci tàng-tàng bi Anita génne ko Anita moom bu dee nangamit am na loxo takk der bu nekkaat ci ginnaaw Anita kon benn nit mën naa doon benn nit mais mën na doon benn gan voilà moo tax nañ loolu mu def plainte ba daal boobu daal war nañ ci jóg gi leeral mbir mi mu leer. alors ci euh, yi bu ñu lëloo fële ca euh, euh, pour waxtaanee nan la ñuy def ba jubbanti li nga xam nag moo di règlement intérieur bi naka tey ji benn communiqué jot na daal di rot di convoqué ñi nga xam ne ñoo di député yi euh, suba bu 3 euh, heures jotee pour rek li nga xam nag moo di information alors tey ji est-ce que yaakaar nga boobule information mooy nu waxtaanee ji ma xool nan la ñuy def ba jubbanti lii di règlement intérieur bu assemblée nationale pour dalal kii di premier ministre. bon man nan la def ba jubbanti jàpp naa ne waxtaan nañ ci ba pare ndax dégg nga li président waxaan ginnaaw bi ñoom dem nañ lëlu sali léegi li ci mën a nekk mooy jàpp bis ne nañu def. kon mën nañoo defaraat nangam jàpp bis dajee ensemble defaraat loolu mbir mi ne booy bu ko amee ñu xool tamit ba xam premier ministre moom ci cëggal guyam ndax léegi day tànn dem wuy ji wala day xaar bu boobaa ci moom lay des voilà mais bu xaaree aussi est ce que du jaay du jaay beneen polémique ndax li tax demul woon mooy règlement intérieur bi nekkul à jour buñ ko mise à jour est ce que du dem def li nga xam mooy déclaration politique générale. waaw bu ko mise à jour moom mooy xool parce que yoon wi tënku ko constitution bi tënku ko ci kañ la koy def te constitution moo gën a foor réglement intérieur man nag jàpp naan ne dana day dem defi ko ginnaaw bi mais damaa wax ne moo tax ma ne cëggal guyam la voilà mooy xool. exactement alors ci euh, assemblée ni des ba tey bii dañuy waxtaanee li nga xam nag moo di parlement bu CEDEAO gis nañu taxawaay bi nga xam ne Guy Marius Sagna am na ko fa ak menaces yi nga xam ni euh, euh, ñu ngi ko fay daal def yenn député yi di xam ne dañuy lancé li nga xam moo di pétition pour rek jëlee fa ki nga xam moo di Guy Marius Sagna gis nga aussi Adji Traoré nekk benn député ivoirienne taxawaay bi nga xam ne am na ko foofu di menace à chaque fois kii di Guy Marius Sagna dem sax ba riir wuti ko pour song ko sa ëllëg sa CEDEAO parlement bu CEDEAO génnee li moo di communiqué di ñaawlu kàddu yi Guy Marius saña di yëkkati foofu ci biir euh, parlement ba alors position Guy Marius Sagna ak taxawaay bi nga xam ne am na ko foofu biir CEDEAO nan nga ko mën analyser. mënoon ko dara suspendre donc lañ ko mën a def ak génne ko salle bi bu demoon ba mën a am mais taxaw def pétition mënoon luñ ko dara dañ ko fal comme ni ñu falee seen président yooyu comme ni ñu leen falee mënoon luñ ko dara. ensemble bu ñu koy wax waxante dëgg moo tax man dama jàpp ne CEDEAO mi ngi doog a am ensemble te nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp te dafa am lu tax CEDEAO mën a booloowaat ñi ci génn mën a ñëwaat mooy lii fa nekk muy débat bu sincère bu fa am gii nag sénégalais yi Afrique dañ ko amal njukkal te ñu ngi ko koy jox député la woon ba mu dégg duggagul ensemble di def liggéey bu am solo di taxawu nit ñi Euh, tey yàlla def ko député fii mu amal fa taxawaayam tey yàlla yóbbu ko CEDEAO mu taxawaat aj baar bi voilà loolu daal bànneex rek laa ci am. Mm-hmm. est ah bien sûr parce que tamit li muy wax mooy dëgg ñi dëgguwul ñooy fekk si ñi dëggu rek. bu ko defee euh, CEDEAO jëm kanam. Mm-hmm. Euh, ça mën nañu waxtaan ba pare te duma la laaj fële ca RTS recrutement wu kii di Asma Khadija nga gis ñu si bëri la ko dinu wax ni amul place foofu la ci RTS daanaka sax ay concert gis gef nañu sorti boobu ñeneen aussi ñu def ay analyse def boobule jàngat yow Asma Khadija fële ca RTS jóge seen TV ñëw RTS nan nga ko mën jàngate ñu si bëri ñaawlu la euh, recrutement. bu dee ay concert am ne fa place parce que ci xam-xam man damaa jàpp ne bu dee loolu loo parce que li muy def tey muy matinal bu fekkee ne Kenkeliba moo tax ñu koy yóbbu gisuma ko ko dàq man invité ma na ma invité ti ma dama ko doon tooñ sax di ko tooñe naan ko Alicia Pop benn vedette américaine bu man li muy def man man matinal man yu demee noonu euh, ci wet googu gàcce ngalaama laa koy wax mais nag kantaa ci wetu tëdd njaaxaanaay bi xeex bi amee non tëddewul woon njaaxaanaay daa faroon ah faroon ba di ko wane mun ko nëbb man mii rek dalal na ma ñaar ba ñetti yoon am na ci boo xam ne bi mu may woo def ne ma euh, dañuy waxtaan ak yooyu bi may woo mu ne ma dama lay invité mais ci waxu culture dong ngay wax doo wax ci waxu politique ma ne ko waa jataay bi de boo fa waxul waxu politique ma ci dugg boo waxee politique mu ne ah, ma ko dafa am fu mu féet danaa ci dugg mu ne waaw kon ñëwal ñu dugg ñu jékki-jékki laal politique ma dugg ci ba mu neex bi ma paree mu réccu waxoon naa la li ma ne ko ah waxoon naa la ko de problème bi mooy du ma ne sax dafa doon ànd ak Bougane man APR waa APR yi la gënoon a jege. ku mel ni Pape bi Bitèye loolu laa gisoon nañu moom la gënoon jege ci parce que tudd naa ko fa surtout ci kaawu Sénélec ak loolu mais dafa mel ni rek ay bëgg doon wuri sarax loolu daal xam naa ko ci moom mais nag moo tax nit ñi war di def nànk suñu jëfi tey mooy suñu jëw ëllëg. quant bu dee Pape Alé nag ñi koy ŋàññi moom Pape Alé am nañ droit ŋàññi ko parce que dañ koo jàppale woon xeexle ko ci ne moom la post bi yell ci moom kon bu demee bay tànn waroon na ci bàyyi xel soppeem yooyu mbir mi da ngay taxaw ne professionnel professionnel gis naa RTS ñu man li ndaw si man même bu dee mane wuñ ko ni mu ko mane gis naa RTS ko tel que ku mel ni ay Binta Sarlu Diop ay ki ay Sati Touré ak euh, ñooñu ci beneen RTS bi lañ nekk <coughs> mais ñooñu gis naa leen ci surtout bu dee dañ koy def wolof ak yooyu mais man duma ci kii torop mën na fa nekk nag wax dëgg yàlla am parce que li muy def man na ko bu gënee xoolaat boppam bàyyi yu bëri yu mu doon def ci yooyu parce que mën na ko te ki ko man rek lañ soxla loolu laay laay wax mais damay du tey damay jox dëgg ñii ŋàññi Pape Alé Pape Alé it na jéem a góorgóorlu davantage ci nit ñi fiñ ko teg parce que bu ñu amul woon ci moom soxla ku la lijjantiwul mënoo koo bett loolu la na ci bàyyi xel na bàyyi xel ci ñi ko bëgg ñi ko bëggoon ndax projet bi ñi ko bëggoon ndax taxawaayam na leen bàyyi xel waaw jaajëf. sa jaajëfal nañ la bu baax a baax ci euh, dalal bi euh, di am mbégte rek di bokk yow ci euh, bi la jotaay di jaajëfal aussi ñun doon teewlu depuis bu ñu rek léegi leen jox dig daje ci kanam tuuti ak yeneen xibaar. tey dama xaw a jagadi dama sant Touré tey moo tax bopp bi di xaw metti ak naaj bi ak xam naa